mbokk yi daleen ak jàmm réewum Sénégal jéggi na 300 cas confirmé ci jàngoro coronavirus lu ëpp ñetti téeméer doomi adama dund ak jàngoro ji fi ci réewum Sénégal bi jàngoro ji doolee ba léegi waaye lu tolloog téeméer ak juróom-ñeent fukk wér nañ ci jamono ji nag li nekk ci loxoy fajkat yi ginnaaw xaymab ni ki démb bi mu ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak benn doomi aadama yoo xam ne ñu ngi tëdd ak dong bi jàngoro ji buñ sukkandikoo source a nag fukk ak juróom yi ne am nañu ni ki ni mu tëdde moo di district bu Dakar Nord ak Jëmbal ku ci nekk am na juróom benn cas yu yoo xam ne am na fa ni ki démb nag guddi Louga Mbaaw ak Ziguinchor ñoom tamit am nañu ay cas yu yees ci lu jëm si cas communautaire bi nga xam ne am nañ ko niki démb nag mu ngi naan mu ngi amee si district bu Ziguinchor foofee nag lu tolloog juróom benn fukki doomi adama ñu ngi leen di may gët di leen bàyyi xel si amlante goo xamante ni bii am amlante nañ ko ak ki nga xam ne moo am góobale jàngoro di coronavirus bu ngi naan nag ba jamono ji lu toll ak juróomi région rek la jàngoro jooju laalewul fii si réewum Sénégal Kaolack Kaffrine Matam Sédhiou ak Kédougou gox yooyu nag cas suspect yi nga xam ne amoon nañ ko fa ginnaaw bu ñu testé yëpp négatif maanaam amuñu jàngoro ji ba léegi kilaas quotidien jàppee cas suspect kay moo di Mansour Faye mi nga xam te ne bii mooy gàlloo lépp lu jëm si seedle dund gi fii si réewum Sénégal ak mbas mi nga xam ne moo di coronavirus bi nga xam ni bi nag na si xam ne noonu lañ koy ak ni nga xam ne noonu la marché bi tëdd nag jàpp nañu ne ay luubal ak ñàkk wax ju leer da cee am naan Mansour Faye kay day gêné Macky Sall dëgg nag si doxalin yi nga xam ne moom lay doxalee ñu fekk kàddu yi Alioune Tine biir yenn kaay bi mu ngi naan ñi nga xam ne ñooy profité si biir occasion nag ñoo raw sax jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus docteur Boubacar Diop bu JDS moom wàllum démission lay wax société civile moom mel ne ñu ngay naqarlu mbir yi ni mu demee jàpp ne ay njuuj njaaj desee laxasu bailleur yi moom kàddu yi nga xam ne moom jaar ñu leen jëndal ak dund ñu mën ko defal seen bopp ku nekk ñu jox ko koppar yi nga xam ne moom la yeyoo waaye li nga xam ne moo di dund gi moom coow képp lay jur ndax ba jamono ji fukki junniy tonn rek la ñu séddaleegun si téeméer ak ñeen fukk ak junniy tonn yi nga xam ne jënd yi nag ginnaaw boo xam ne amal nañu ab lal di conseil des ministres nag président Macky Sall mu ngi xiital gouvernement baax a baax ñu def ay jéego nag ba yoolee dund yegg si askan wi ak ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo wàññeeku naka la mën a randalee fayeeku gi nga xam te moom lañ nekk ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la dund yooyu la essence nan la def nag ba mën koo randal mooy waxtaan wi nga xam ne njiiti réew mi war na see sóoboog ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum koom googu jamono ji ñuy wax wàllum koom ak dund ak moom docteur a mu nekk li nga xam ne moo di solution waaye li nga xam ne moom jàpp na ne daar daar war nañ ci dugg jamono ji nag moo di généraliser takk ay masque digal askan wi yëpp ñu di ko def mu ngi naan nag faaw ñu dox seeg fulla ay mesures yoo xam ne bi yu gën a dëgër la ñu yegg ci ndax lu mënta ñàkk la ci njeexitalu yéenekaay bi libération mu ngi ñuy xibaar naan fukki cas ak ñaar yu yees nag niki démb am nañ ko diggante Parcelles Assainies ak yëmbal juróom-ñaari way tawet ñoo wër kaay di gën a yokk si yooyu lee gox ginnaaw ndakaaru gi nga xamante ni bi amaan na fukki kaa ak ñaar yu yees ñi ki démb mujjee nañu nag yokk tëjuk frontière gi diggante réewum Sénégal ak biti réew ba yegg si fanweeri fan ak benn si weeru mai bi ñu dëkk mël Ziguinchor cas communautaire bu yees bi nga xam ne moom la am nag ub na seen bopp ndaxte mag la boo xam ne am na juróom benn fukki at ak ñett lu tolloog juróom-ñaar fukki doomi aadama ñu ber leen mettre leen en quarantaine ñi nga xamante ne bii tëj nañ leen jege nañu ñetti junniy doomi aadama yoo xamante ne bi dañ leen a confiné buñ sukkandikoo si turbine yéen kaay mi ngi xibaar na nag jàngoro ji dafay mel ni dellu ginnaaw ba léegi fii si réewum Sénégal àdduna bi yëpp sax ginnaaw boo xamante ne bii direct news mu ngi xibaar naan réewum tugal leeg di France niki démb lu tolloog junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti doomi aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan diwaanu États-Unis moom lu tolloog fukk ak juróom benn doomi sénégalais ñàkk nañu fa seen bakkan xanaa rek rafet njot ak ànd ak réew mi quotidien mi nga xam ne mu ngi xëyee kaddu dijjë rawul mi nga xamante ne bii mu ngi naan nag bii la jàngoro di coronavirus léegi mu jeex ci àdduna wërngal këpp jërë ngeen jëf mbokk yi ñu toog ci kër yi te ñu yend ak jàmm